seytaan rajim bismillahi rahmaani rahim rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul uqdata min lisaani yafqahu qawli jërëjëf sëñ Tuubaa asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa bokki jullit bokki taalibe noo ngi fii ci Touba Darou Khoudoss kër soxna Mariyam mu taawub sëñ Modou Moustapha bokk ak sëriñ Mbacke Madina Ndaye ak Baye man mii wax itam sëriñ Fallilu Mbàkke laa tudd moom sëriñ Abdou Wodoot ak soxna Njóoba taawub soxna Maryamu noo ngi fii ci Touba Darou Khoudoss noonu la noo ngi nekk nag ak sunu wayjur soxna Daba Faal mi fi nekkal soxna Maryamu di jawriñam mu jur na di sunu lépp ak sunu rakk sëriñ Abdou Lahat Mbàkke moom sëñ Seex Mbàkke Madina sëñ Seex Bombaale ak njabooti kër gi ñëpp fii nga nu fekk nag muy bayti nu tàmbalee kon ci màggal gi rek ndax actualité yëpp màggal gi rek la màggal gi nag le 10 août 1895 la sëñ Touba déparé mbakki Bari ca Jolof woo sëñ Modou Moustapha sunu maam ak sëriñ Fallilu Mbacke sama turandoo ñaan ci seen bopp dénk leen yàlla ni leen maa ngi dem te ñëw mooy tàmbali liggéey bi 10 août 1895 sëñ Touba tàmbali liggéey bi ci géej gi am na fa juróom-ñaari at ak juróom-ñaari weer ak juróom-ñaari saa bi mu ñibbisee ci géej gi itam dem na gànnaar am na fa ñeenti at ba ca noppee ca gànnaar ga itam dem na Ceyeen Jolof Ceyeen googee Sëriñ Mbàkke maddina bi mbokk ak borom att bi ndey ak baay moo ko yeesalaat ab dëkk ma sëñ Cheikh Mbacke Madina moo fa ne Thièyène Jolof sëñ Touba am na fa juróomi at wàcce na fa junniy kaamil boo fa demee xam ne jeexit sëñ Touba ma nga foofu Thièyène Jolof sëñ Mbacke Madina moo ko yeesalaat 1983 wala 82 sëñ Abdoul Ahad gànna si na ko fa fa ma fekk man mi di wax foofa itam jeexit sëñ Tuubaa ba mu fa ne juróomi yi la noon ya bëggoon ak tuwaab bi saa borom dogalu ko ci moom itam ndax nee woon na ànd na ma ak yéen waaye nag du ngeen ma digal lu ma def du ngeen ma tere lu ma bàyyi saa borom ndigalam lay déglu ci yeen ñu def ko réseau de surveillance ba mu fa ne ba juróomi yi jeex 1907. 1912 certes la fa ñëw ba 1912 ba mu tëddee guddi mag ñu jëkk ñi daan nañ ko def def def li mooy seet diggam ak boromam suñ borom xamal ni ko li des sa dund gi suuf su sell su laab sëñ Tuubaa ko ñaanoon boromam sama sama dund gi suuf su sell su laab su ma mën a jaamoo yàlla laa bëgg ñu wan ko suufu su jaareem mu bind na raamal ma masiri ilaa Jurbel la daal la si si la wax yoonoo siri maa fi siri ma raamo bi mu xëyee tuwaab yi ne ko njaareem gi jëm te fekk na décret bi génn na ci boromam ci guddi gi ñu yóbbu ko njaareem borom att bii ngeen ma fekk nag muy soxna Mariam moom di taawub sëñ Mourou Moustapha raamal ma siri joojee lañ ko yóbbaale ca fas ya wàcce ko ci maamam seen daam Abdourahman loo kuy njaboot sëñ Tuubaa rek jaar nga ci ay loxoom mooy maamam ñu jàll njaareem sëñ Touba def na njaareem fukki at ak juróom yoo xam ne du tukki du dem ngénte du demu xew wenn xumbeen wuy am ci moom wu muy fekk du am ndax ci loxol tubaab yi la ne ba fukki at ak juróom yu mag kon loolu mooy taxawaay bi bayti itam nu wax ci lañ ci xam bayti wax nañ ni sëñ tubaa mës sa dëkk Touba bëggam gépp itam Touba la daan na wax ni kenn ku ne la nga gën a bëgg la la yàlla nattoo bëggam gépp tuubaa rek la bëgg te yàlla nattu ko am na bis mu ñëw bay tolloog armeel yii yu mag yii ci xay gi sun borom ne ko sa nagu bët wii day bu tegoo ci tuubaa li nga liggéeyoon lépp da ko ñàkk mu muuraat bët yi fu ma toll ñu ne ko yaa ngi toll ci kër gu mag gi de booba armeel yi kër gu mag gi lañ koy waaye fu ma toll ci kër gu mag gi ñu ne ko yaa ngi tollu ci barabub soxna Aminta Lo soxna Aminta Lo mooy wajuru sëñ Moodu moom bi sëñ Tuubaa yëgee ci xew-xew ba ci boppam sun borom ne ko soxla naa sa bakkan soxna Aminta Lo ni ko man de sama bakkan bii mën naa koo jaayante yow nga des fi ndax Mouhamadul Amin sama doom ji wóolu naa soxnaa bu sa mi di sama dend denduwaale nu bokk wana wi wóolu naa ko ci soxna Aminta demal sëñ Tuubaa bi sëñ bi ne fu ma toll ñu ne ko yaa ngi ci kër gu mag gi mu ne fu ma toll ci kër gu mag gi ñu ne ko yaa ngi toll barabu soxna Aminta mu muuraat bët yi banam tàmbalee liggéey bi ba ñibbi siwaat nagu batam bii tegu Touba wax nañ ni itam juróom-ñaari yi mu am Touba bayti kii fi la newoon chakar yu bare ngi bayti kii junni yi ngi daan dégg itam kàkkuraaku nàkkuraaku ak morom yi boo demee ci daqaar gi am na waxtu woowu kenn du fa dem gaale mi yóbbaale ci géej gi itam lu bari ci ay bagage mi ngi fii ci bayti barab la boo xam ne barabu sëñtuwaa Touba sëñ Touba juróom-ñaari at yi maam fii la ko amee ci bayti barabu siyaar la fukki at ak juróom yi njaareem la ko def allool ah, loolu itam da xam nga noon la lanu lanu dégg rek lan mën a gëm te sëñ Touba noonu ci sunu wetuk bopp ak sunu taalibe doon ci am lu nuy nattable moom ndax jëne yi nun gisuñu ko wallaay mën noo gisu jëne itam waaye leer na ma ne moom mi ngi fi ndax bés bii nu dëgmal ba fii nu toll am na waxtu woo ñi mën a gis jënd nee nañ diggante buntu kër gi ba nee ba jëm nale ca bayti waxtu ne yaa ngi soo jënd yi barab bii moom fu bari ay jënd la kàkkuraaku nàkkuraaku ak morom yi daqaar ga maga fa ku dul sëñ mbakki mat rek mosoo faa fanaan ci doomi sëñ Mourou Moussa yëpp moom rek fu mos a fanaan ci lu ma xam man waaw am na ñu bare bare ñu doon nañ xalifa ba ni sama borom dogal seenu jeex dañ fa daan yendu rek waaye ña fay fanaandate fi ne xam naa boo amee itam bëreetul de waaye moom nag newoon na fa moom wallahi ba ne yàlla moomee bakkanam ca gaawu ba foofee la ko moomee ñu yóbbu ko fee mu tëdd ci wayjur mu tëdd loolu mooy cosaanul bayti gaali sëñ Tuubaa ak secret ya ak bagage ya ak lu bare bare bari mi ngi fiti nam ko nekk njaareem ndax boo njaareem néeg ba sëñ Tuubaa wàcceeb liggéey ñu mujj koo gis ci saayir ma nga foofee néeg ba nga xamee ni néeg junne yi lañ ko tudde ma nga foofee néeg ba nga xamee ni yonent bi alayhi salaatu wasalaam feeñu na ko fa itam ma nga foofee wax nañ ni sax am na ci njaboot yi wan na leen Seydina Jibril am na ku ñuy wax euh, maam Njaxat Silla mi ngi dëkk nii sunu gannaaw bokkoon na ci ñi ne woon ci wanagu sëñ Tuubaa loolu ñuy wax ñi sëñ bi dëkkoo woon wan wan nañ ko wan nañ ko ba Seydina Jibril daa feeñ woon sëñ bi mu woolu njaboot gépp maam njaxat moomee boo ko mosaan gis ci saayir da jàpp ni góor la sax ndax melokaan la waa cer bi da xam nga sëñ Mbàkke Madina moom euh, moom léppam day sëñ Tuubaa ndax lay bëggu sëñ Tuubaa ca la ndax sëñ Tuubaa moom ak bëggam gépp weesuwut lislaam jàng julli bàyyi ca la newoon mooy jaaju ba ja sama turunda waxoon sëñ Mbàkke Madina moom bañ nañ ko ba féetale ko ni mooy borom alquran doon na itam sët yi nga xam ne ca sët yu mag ya la bokk ndax moog sëñ Cheikh Gaynde ma ñoo maase ñoo jàngandoo ñoo sampandooy kër ñoom na sëñ Tuubaa boole woon itam ba ñuy dem gànnaar ñoo àndoon 1913 ñii ni 12 ñii ni 13 bi sëñ bi ñëwee njaareem ci lañ feeñ jamono bari na seeni baay yooyu ñoo leen mag waaye sëñ Mbàkke mat na moom daa bokk ca mag ña tey cërub mag ndax fi ne ñi xamut ñu bari xamuñu kuñ ko tudde te xam gi dafa jaadu maam Mor Jaara magi mag magi mag boo gisee ñu di ko wax mooy sëñ moom dara du ko mënta féete kaw waaye nag maam Jaara mooy magi sëñ bi ci saayir moom lañ tuddi sëñ Mbàkke Madina waaye tànkam bi moom mosuta wàcc saraatal mustaqim dundam gépp itam jooyal na ko jëmale ci boromam sunu nijaay taqoo nag moom lool wax na ma ni sëñ Mbàkke Madina moo ko nettali sëñ Cheikh Ndiaye Mariam mooy jarbaatu sëñ Mbàkke Madina lenq borom kër gi mooy wajuram nee na sëñ Mbàkke Madina nee na ko bi mu noppee ci alquran ja moog sëñ Cheikh genn biñ ñëwee sëñ Touba dañ leen Cheikh yaag sëriñ na ngeen góorgóorlu te xam ne du ngeen ci gone yi ci mag ñi génn te booba jàng alquran ak bind kaamil rek ca lañ toll na ngeen góorgóorlu ndax lislaam bu njëkk fetal ak i ngànnaay moo koy xare tey soppil leen leen ku ñaari mbir ba ci njëkk mooy da ngay defar sa jëmm ba ku la gis bëgg la ba ca toppaat mooy da ngay defar sa jukko ba ku la gis dootu la bàyyeeti moom lañ tagge woon yonent bi aleyhi salaatu wa salaam xaatimi nabiyina imaamul mursalina wa innaka la ala xuluqin aziim aw tagg mënu ko weesu defar naa sa jukko ba doyloo ko yow laay mujjee wàcc ci ab yonent sëñ Mbàkke mat na moom ci biir njabootu sëñ Tuubaa la bokk soxna Aminta Lo mi ndeyam sëñ daam Abdourahmane moo ko jur sëñ daam Abdourahmane itam ñeenteelu njëbbal la ci sëñ Touba ndax ba sëñ Touba tasee daara ja ca Mbàkke Kajoor fa baayam woon ndax da ko doon noon ci baayam jàng ak jàngale ca la woon am bis itam mu naan lii de lu baax lu màgg la muy alxuraan dara gënu ko màgg waaye am na lu gën a gaaw àggale ne nak yàlla mooy tarbiya la doon feeñam am ndigalu tas daara ji ci borom sëñ daam Abdourahmane Lo du ko yónni bi mu ñëwee mu ne ko ndaam Abdourahmane de sa ndigalu borom wóotu na la fi nee na jàngaleetu ma koo xam ne li ma bëgg nga bëgg nag muy nu wuti yàlla ñëwal naan mu ñëw jébbal kooke moo jur ndey sëñ Mbàkke na moom dañ koo fàggul ab cëram cëri mag ñi itam ca la yor yoru cëru gone de waaw ku yàlla dimbale la teel a mën alquran teela am xam-xam teel a teg mbiram ci aw yoon dégg woon itam ak way juram sëñ Modou ak maamam sëñ Touba ndax la la sëñ bi doon santaane mooy tegu ci saraatal mustaqim ak taalibe wax nañ ne ko kopp li sëñ Mbàkke Madina amut man teewe naa sëñ Abdou Lahad ak sëñ Abdou Khadir yàlla yàlla dolli seen i leer doomi sëñ Touba lañ te yooyee jamono sax sëñ Abdou Lahad mooy sëñ Touba boobu moo toog jotaay bi bu mosaan ñëw ci sëñ Mbàkke ñoom ñëpp suuf lañuy ñuy toogandoo sëñ Mbàkke day raam cër bi ko yàlla jox ci diggam ak boromam woy juram yooyee du ko feeñal seen biir borom pos ku bari xam-xam la woon kuñ tànnal way jur la itam ndax xam nga way jur dañ koy tànn sëñ Tuubaa daan na wax ne ku ñuy taamu dangay tànn portaatum jabar poñetum doom sëñ bi neen na jekk na junne yàlla na moo ko gën sëñ Mbàkke mat na nag dañ koo fàggul muy cëru boppam ñu daje ci kër gi ñëpp tubaarkàlla kenn ku ne mel nga na nga war a mel jóge nga fa nga war a jóge itam waaye nag sun boroom da koo jagleel moo boppam nag boo xam ne bokkoo kenn yàlla sedd ko ko ak maamam sëñ waa borom cër la woon waaye jàmbaar woon fii ci bayti daal moom xam naa ni daan na fi fanaan lépp ci jaamu yàlla am itam daan na ko fi def weet ak weet li itam ca ne woon sëñ Cheikh mbakki Madina mi moo fi bàyyi itam di sunu lépp ndax moo baayam ak soxna Mariam mu boroom kër gi jur sunu way jur ñoo bokk ndey ak baay muy sunu nijaay ci wet googu bu dee wetu Daaru Salaama ba tey muy sunu lépp bu dee wetu sëñ Afee nu bokkaat lépp sëñ Cheikh mbakki Madina ab tànkam fa bàyyam tegoon tànkam rek fa la ko teg lu dul lislaam amu defar amu yàq lañ ko batale woon itam muy jaamu yàlla maga ak dimbale du tëju bu tëju itam xëy na daa bëgg a jot boppam rek noppalu wala muy war a deeyaaleeg boromam wala muy necca lam war a ne rek loolu mooy wàllu sëriñ loolu la nawee sëriñ yii xew ci jamono ji yàggut amutoon itam ci jamono sëñ Tuubaa léegi matérialiste dañuy xoolee ab sëriñ ci lañuy ñuy natt itam te nattuwaay ba newut foofee nattuwaay ba la sama turandoo waxoon jaaj ju ba jàng julli bay doy na di da ci desaat lépp <laughs> sëñ Tuubaa noppi na ci sëñ bi fàggul nanu lépp ba mën nañ ci dund wallaahi ba sunu dund jeex résum bu du jeex sëñ Tuubaa rek ku man ne ci ba faatu sa doom ñëw taxaw mu gën a baax sëb sët ñëw taxaw mu gën a baax loolu sëñ Tuubaa rek ku man waa loolu itam la ci seen taxaa santaane moom lan war a ubbee moom lañ war a tëjee itam yàlla na fi yàgg loolu tànd ku wér ndax ku nu ko gën a jege amut ndax waxtu wu ne maa ngi dem ci moom wallaahi muy koo xam ni ay baayam jiitu nañ fi ak i magam yam wotu waaye pas-pasam ci diggam ak sëñ Touba moom sëñ Mountakha neexutaam moom ca pas seefu jëkkee la lam digle ci dëkk bi itam mooy li fi mu daan digle rek li ak i muy sëñ Touba ndax dëkk bi dëkkub sëñ Touba la titre foncier bi itam sëñ Modou Moustapha moo ko defoon nattub dëkk bi itam sëñ Fallou sama turandoo ko def 1963 la jumaa ji nopp 63 lañ defar kër yi kenn ku ne mën a am kër ndigal yi nag yàlla moo njëkk a digle moom sëñ Touba jaaraat foofee yàlla digle ndax sun borom dani bu dee sunu wàllu soxna yi maanaam jigéen moom léppam awra la xar kanam bii rek la ko lislaam may mu feeñ ci jëmmam waaye li ci desaat lépp awra la kon la la la lislaam sentaan nag lislaam moom lépp civilisation la mooy sol col gu jot melokaanoo melokaan wu jot mooy jullit ndax jullit dëgg-dëgg mooy murit dëgg-dëgg murit dëgg-dëgg mooy jullit dëgg-dëgg sëñ bi la mu fekkoon sëñ bi laata njëkk a tere sëñ Abdou Lahad ba mu daree ah mi ak naan sàngara ak ñaaw ñaawteef yi sëñ Muntaxa yeesalaat sëñ Abdou Lahad ko njëkk def moom nag da caa tegoon ni saa bakkan bii laa ci teg lu dul bëggu sëñ Tuubaa rek soxlaatuma ko ci dëkk bi loolu la sëñ Muntaxa yeesalaat loola itam ku ca gis sa bopp itam xam ni la sëñ bi santaane la muy bëgg lépp ci lu baax ba keroog muy jofal mbooloo mi ca kanamu sëñ Tuubaa bëgg rek ñëpp am tawféex loolu la sëñ Muntaxa bëgg ba tax bëgg ñëpp comporte woo comportement nit ku yiw nit ku julli ndax boo demee Màkka misaal ma ñëpp dañuy muuru góor ñaa jigéen ña ta lay la na ca Màkka mooy li na Tuubaa rek ndax sëñ Tuubaa jëwriñ yonent bi la alayhi salaatu wasalaam nee na nee na ñàcc suñu borom tabaaraka wa la mu tegtal ko yonent bi lii ma am lépp itam ci yonent bi la ko jaarale ba yàlla jox ko cërub boppam mu ne muridullaahi ku nam ma jëm ci yoonu yàlla ñëwal naan wuti yàlla loolu la sëñ Tuubaa wax sëñ Tuubaa itam daawud wax ni ku la jur ku la yar lay laaj daan na wax ni itam kenn ku ne ci nun la nga baaxle laa bokk ak yow la ca des yoonam néew ci tàmbalee ci sëñ Tuubaa yam sëñ itam mooy tàmbalee fa lu baax tàmbalee yam fa lu baax yem mooy sëñ Tuubaa dafa am ci mag ñi koo xam ni bi sëñ Abdou Lahad tere daa am ci magi taalibe yi dama du tudd tur ndax télévision laa ne mu ne ko ah, man de li ma dégg si ñëpp laat loolu de jàpp naa ni mënta am mu ne ko ah, bu la naqaree delluwaatal ci sa gentu maam ba ndax fii dëkku bàyyam kat <laughs> bu la naqaree li ngay bañ dellu sa gentu maam ba fii moom li sëñ bëgg rek fi am waaye fii moom li fi ne sëñ tubaa ko fi def te du jóg mukk àtteeb tuubaa itam ki fi neyal sëñ tubaa ci loxoom lay ne lam bëgg ci dëkk bi itam mooy lépp ak yiw ak yiwee ak comportement bu baax ak jukko yëpp mu defaru jukko yëpp defaru ndax jukko ju rafet kat lañ tëgg yonent bi alayhi salaatu wasalaam neewuñ ko Abdullahi mii sa bàyyi kum dul bàyyam dugan Aminta mii sa ndey xare yu rëy yi nga xare géeru xuraysin gi nga bokk wa innaka la ala xuluqin azim la yàlla wax sun borom ne inna akramakum indallahi atqaakum ki ma gën ragal gën maa jaamu mooy ki gën fi man loolu la wax te dëkk bi dëkkub sëñ Tuubaa la la fi sëñ bi santaane kon nun sunu defaroo adduna ak àlaaxira ah yàqu-yàqu yi ak ñaawteef fi ak bon bon yi amutoon Touba léegi rek la waaye bi suñ laa laat nee moo daan yëkkatil boppam micro bi wax boobaa kàddu yëpp nekk benn te kii fi na tey di sëñ Touba sëñ Muntaxa yàlla na fi yàgg loolu tànd ku wér lam bëgg rek mooy bëgguk sëñ Touba fa mu teg tànkam itam ko sëñ Touba tegoon lam bëgg rek mooy bëgguk sëñ Touba fa mu teg tànkamitam itam ko sëñ Touba tegoon loolu daal mooy li wér waaw asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa noo ngi siyaare itam sunu wayjur wi ci biir soxna Daba Fall di ñaan ngeen ñaanal na ko mu yàgg fi loolu tànd ku wér ndax mooy jëwriñ soxna Mariam moom rek lañ fi dese ci wayjur ak sunu rek sëriñ Abdou ak njaboot gi ci soxna Bali ngi ci biir ak njaboot yi nu seqal kër gi ñëpp ndax kër gii ngeen nu fekk moom ci këri sëñ Modou Moustapha yi ndax borom kër gi mooy taawab sëñ Modou Moustapha soxna Daba mee ko fi nekkal nuy njabootam ne ci suufam di ñaan yàlla ngeen ñaanal nu ko mu yàgg fi lool tànd ku wér ndax yàggam fi baax na sunu njariñ la nun ñëpp sama baay man mii di wax ak yow sëñ Abdou Wodoot mi ma jur bu sëñ mbakki Madina di naaw muy naaw ñoo bokk néegum day kon <laughs> moom lépp benn la rek eh, maa ngi sant magi taalibe yi ngeen ma fekkeel itam sëñ Njaga mi ne ci biir kër gi di sama jëwriñ nu bokk kër sëñ Afi Ahmadou Mokhtar imaam yi sëñ Touba sëñ Njaga biir xëy na tàngoor weeku ko jàpp mënta génn waaye kon dana jël kàddu sëñ Modou Fall sëñ Modou Ndiine nga neen di rakkam di jawriñam sëñ Modou Fall ngi ne xam naa ba la may kii mu tëj ay kàddu ci aw turam nga may ma ko tuuti rek ñu jàllale ko sëñ moodu ñi nga gën a jógee Bambey ñu tudde ko sama maam sëñ Modou Farmata yéen a dëkk ci Bambey ci magi taalibe yi bokk ak bokki bayti daqaar yaa ngi ne bokki ngunjaan yaa ngi ci biir ak waa ndakaaru ak fu ne nit jóge fa ngir yàlla ak di dabo si bëggug sëñ Touba ak wooteeg sëñ ndax sëñ Touba dane bésub sant yàlla la li ko dale ci ganaar ba ci bëy ba ci xar ba ci nag ba ci gëléem lu am na ma ko ci sant yàlla aw gëléem gëléem a nga ne yeewe waa diaspora bi ñoo ma ko yónnee ay nag a ngi fi kër goo dugg fa tabaarakallaahu yàpp woo day des sun bokki séréer si ngeen baal ma <laughs> dañuy mujj sax buñ fi jógee day am neneen nu muy demee ci ñoom waaye loolu lépp sëñ Tuubaa ji wane boppam rek ndax bisub sant yàlla la ba mu koy tàmbali ca Jolof ñaari ganaar la tàmbalee moo ko santaane itam bisub sant yàlla lu waaye am na ma ku ci defal ku ci feeñ dootoo nëbbooti waaye ku ci nëbb dootoo feeñati bisub sant yàlla la kon loolu mooy bi nu wootee bi sëñ Tuubaa wootee murit yëpp ñëw nañ kon la des nag ki sëñ Tuubaa la dese te sëñ Tuubaa itam dara dese ci moom kër goo dugg rek fa tubaarakallaa lépp doy na lépp mat na itam ndax woote bi sëñ bi moom mi woote nag ñi ñaa ngi naan jamono ji daa am no am aw melokaan waaye jamono ji day gën a neex rek ndax jamono yi sëñ Tuubaa la. ah jërë ngeen jëf maa ngi sant yàlla bu baax a baax waaye wax ji moom loolu suñ bi wax rek moo fi nekk ñun ay taalibe lañu ay dongo lañu ay taalibeem lañu suñ baa ngi ci biir ci kàddu suñ jege it laay waxee li mu leen wax nii moo tax. ببهر